Bienvenue dans votre maison de production. GP Gabon Production Académie Médène TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.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 أزاري مراسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليم يميني وقل بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله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 di nuyu suñu président directeur général sëñ Abdou Lahad Ka di nuyu mbooloo nit ñi liggéey ndool tey maa ngi fas yéene waxtaan am na si sama naataango bi di Amel Sarr di ingénieur seen génie civil. dañuy wax si liggéey fu mu toll maanaam Touba Matériaux ñu ngi commencé woon liggéey bi am na si neuf bâtiment léegi boo xoolee neuf bâtiment yi am na si six yoo xam ne daanaka livré nañ ko ba fi mu ne nii fonctionnel na commencé na muy UFR e yi UFR e islamique yi ak Madiaïs Madiaïs Grand Modèle ak Petit Modèle yooyu boo xoolee fi mu ne commencé nañ ngi si biir. ñu ngi ñu ngi si jàng bi léegi nag ñu ngi war a entamé yeneen yi nga xam ne dañ koy war a àggale ko si jàmm muy amphithéâtre 1500 place bi ak restaurant bi nga xam ne moom la nekk nii ak bibliothèque bi nag suñu ginnaaw léegi boo xoolee amphi moom ñu ngi si finition yi finition génie civil yi lañ nekk nii actuellement ñu ngi si forme de pente yi ak nawet baa ngi sooxe mi ngi ñëw léegi restaurant bi moom pare nañ carrelage yi installation yenn yi yëpp jàll na léegi ñu ngi si séparation cloisonnement des bureaux moom la nekk nii si leen taxaw nii donc mën naa ne si gros gros œuvre bi daanaka jeex na ñu ngi si second œuvre bi si la nekk nii te bëgg nañ si vraiment def ko mu gën a gaaw comme ni ko suñu président directeur général waxee mu bañ laat suuf comme ni ko sëñ Mountakha doon waxee ni mu ko sàkk woon mu gën a gaaw mais gën a gën waaw service qualité parce que lépp loo gis nag comme ni ko président bëggee mooy service qualité liggéey bi mën na gaaw mais nag na gën sëñ bi moom lu gën rek moom moo ko soxee te moo ko gënal si loolu daal lañ teg suñu tànk waaw les amphibes aussi gros œuvre bi jeex na à part finition yi nga xam ne mooy lan mooy forme de pente yi yenn finition yi nga xam mooy finition enduit extérieur yi nga xam ne accorder ak yenn yi nga xam ne intérieur la mais daanaka jeex na bu ñu weesoo loolu ñu ngi si gros second œuvre bi second œuvre bi c'est quoi c'est monter les grilles gën a entamer dans les plus brefs délais les faux xam moom la àndal yëpp incha allah te loolu ñu ngi si dans semaine prochaine dinañ ko commencer incha allah bibliothèque bi aussi taxaw bi xam na yàgg mais fa am doon xaar am lu doon saytu si ay plan mais daanaka yëpp yem na. dans quelques jours da ngeen gis ni relancer ko mu bañ a taxaw ñu nekkaat si bu baax a baax baax incha allah de daa xam na loolu en grosso modo si loolu daal moo fa nekkoon si si njëlbéel bin ginnaaw bi jugee si fetu côté bi di baal ñëpp ak na di ak na foofu laa war a jiitu ñu ngi baal ñëpp ak ñëpp ak di ñaan yàlla suñu téléphone jàmm dafa ko defal ko suñu jëwriñ di sëñ Abdou Lahad Ka bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyal moom la ñu fi nekkal. waaw moom daal mu bëgg nag liggéey teg ko foo xam ni maanaam bëggul leen lu koy sooxee bëggul leen lu manqué maanaam bëgg na lépp lu ñu def def ko si service qualité maanaam li gën maanaam si bu neen li gën na si ay normes parce que liggéey boo gis si génie civil liggéey boo gis si bâtiment liggéey boo gis si gros second œuvre ay normes la boo ko respecté rek wàccoo yoon parce que nag bu dul dara ndax ñi ñuy contrôlé ndax SCAT international dañuy dañuy contrôlé waa ngi fi te waa Jamra bi aussi bàyyi ñu dara lépp ñu ngi koy xool di ko seetu nu mu waree loolu daal ah laa amoon si lu ma si sànni kaddu di leen présenter Ahmed Sarr bi nga xam génie civil la ba amee ay kaddu yoo xam mën na ko sànni ndax xel xel day fàttu waaw. waaw comme ni ko sama jëwriñ waxee rek moom sama directeur laa koy tooñee ndax moom macha allah waaw vraiment moom moom daa ñëw ubbeeku ci liggéey bi daanaka lépp loo ñun ñu wax ñun bi ñu ñëwee léegi yàggul daanaka. mais début bi ni ñëwee léegi waaw macha allah moom lépp lépp la lay waxtaan ak yow li nga fekkee li nga fekkewul waaw mi mel ni comme ni mu ko waxee rek liggéey bi moom fi mu toll nii macha allah waaw mi ngi avancé bu baax a baax waaw vraiment DG moom bëggul dara li nga xamante ni war na mën a tardé ci liggéey bi waaw bëggul ci dara loo xam ne day tardé wala loo xam ne dañ naan dañ ciy am xiili xaala waaw DG moom lépp loo laaj rek daana ko dina lijjanti ba lépp tegu waaw comme ñun moom ñooy nekk sur le terrain comme en tant que technicien et ingénieur. waaw ànd kook sunu responsable loo technique waaw moom euh, monsieur Diouf waaw mi mel ni euh, liggéey bi moom fi mu toll nii mi ngi avancé bu baax a baax a baax mel ni rectorat bi nekk nii ñu ngi ci cloisonnement yi boo xoolee cloisonnement yi moo moo moo taxawee nii cuisine yi boo xoolee léegi nu pare daanaka ndax fi mu toll nii ñu ngi ci table yi waaw table évier yeeg yooyu ñoo ci nekk fi mu nii daal mën nañ ni finition la nekk à part loolu ñu ñëwaat ci faux plafond bi waaw moom it bientôt ndax fi mu nii. Euh, euh, chemin de câble chemin de câble yëpp monté nañ ko doon nii kon bientôt bàyyil nañ ko espace bi nga xamante ni fi la faux yi war a war a war a war a war a tegu waaw kon mën nañ di daanaka moom fii moom jeex na xanaa après ça bibliothèque bi nañ fi am comme gros œuvre yi fi des ndax euh, on peut dire que fii nii yëpp seen gros œuvre jeex na ñu ngi ci ay secondes œuvres waaw bibliothèque bi nekk suñu gannaaw daal xam naa ni bientôt comme ni ko directeur waxee bientôt dinañ ko entamé waaw incha allah moom